ndax dama japp ni Sodefitex si jamono yi situation am doy war lol lol lol ndax su fekkente ni sama xam-xam jaawale wumako japp na ni sen déficit prévisionnel cumulé ci 2020 bi ñu nek ni dina xaw yegg 1,5 milliard bu ko ëppulé yenen difficulté yu jéggi day aussi nek na ci biir filière bobu bok na ci deug la wax nañu ni amna 15000 tonnes yu bees yo xamé ni duguna ci waye lu wessu juromi at ci gannaaw at bu nek production bi day ko bu baax baax te wax nañ fi légui aussi li nga xamé ni moy concurrence bi nga xamé ni mbay mi gerté gi amna ko jëm ci li nga xamé ni moy coton bi beneen bi jafé jafé bi nga xamé ni secteur bobu amna ko mo nek ci walu compétitivité bo xamé ni dafa nek ci personnel technique yi ak yi nga xamé ni moy moyen logistique yi nga xamé ni liggéey bu dox surtout si wàllu mbay capacité technique yu am mana ak yu doy moko ko si def benen bi tamit gis nañu ni les cours mondiaux ci wàllu coton bi wàññeeku nu bu baax xeyna affaire effet Covid beug yu demé non mo wara tax en d'autres termes et en résumé japp nañ ni situation financière bu djeggi dayo mo nek fofu xawma ndax li ñuy wax dëgg la am déet ñuy wax ni cours bancaire au Sodefitex war na yegg ci 7 milliards te ci biir loolu état bi amna lo xamé ni lu xaw toll ci 5,5 milliards yoreel na len que té loolu aussi mën doon lo xamé ni dina pénaliser bu baax a baax développement secteur bobu ma japon ni tey jii lan mo wara doon sen taxaway yeen gouvernement bi su fekente ni jàpp len ci prix au producteur bi ba yeggul 300 francs jàpp nañu ni aussi ni quelque part mën wacc ba yegg 189 francs mu doonaat benen préjudice bo xamé ni voici benen filière bu am doole ci agriculture ak ña cay nekk di liggéey yépp mën nañ nekk dans la précarité waxuma nag li nga xamee ne moo jëm ci wàllu management interne société boobu boole kaag seeni poste financier de dépense yi nga xamee dina wàññeeku ba si ay perte d'emploi yoo xamee ne mën na see soqeeku kon bu ñuy wax wàllu agriculture la koy saxal dëgg-dëgg te mboolem député yu bare ñëw nañ ci mooy il faut que la préférence nationale ñu koy jël di ko jox àq di ko jàppale di ko taxawu noonu it laa bëgg a waxtaan ak yow si li nga xamee ne moo jëm ci wàllu waalo gi ndax atum ren ji boo seetee seeni culture contre saison am na ci jafe-jafe ndax dafa yéex ba pare ndox mi yàq na ci lu bare bare bare ñaareel ba fan yi paase ñu ngi wax ci seen culture nawet li nga xamee ne mooy yàq yàqu bu jéggi dayoo boo xamee ni am na député sax bu wax ni lu xaw a toll ci mille hectares yàqu na ci kon ñaari bay ci benn jamono yàqu na ci beneen secteur boo xamee ni noonee la am solo noonee la am ay famille ay liggéeykat yoo xamee ni ñu ngi ciy dépendre kon nag dëgg-dëgg secteur bii dafa di secteur bu stratégique dafa di secteur buy impacté ci condition de vie bu sénégalais yi di impacté ci situation wu réew mi bu ñu ko booleeg lii nga xam ne mooy immigration bi dañuy am ay facteurs aggravants ndax bu mbay mi baaxulee ba yàqu baykat yi yàqule lu bare nga wëlbati wëlbatiku géej gi yàqu nappkat yi yàqule lu bare Beaucoup de chômage bu métti bi nekk ci réew day trouver des des causes évidentes pour que xale yi téye leen fi day dal di doon et c'est pourquoi je suis d'accord ak ñi doon wax ce rôle dafa stratégique compte tenu doomu aadama yi nga xam ne ñooy dépendre ci wàllu mbay mi kon sa taxawaay ak sa liggéey dafa à la mesure et à la proportion wu défi yi nga xamee ni défi d'emploi défi de stabilisation défi d'organisation défi de financement défi d'encadrement défi yi nga mom secteur stratégique yi nga ñoo ngank liggéey té mëna saxal li nga Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment vous demander, Monsieur le ministre, compte tenu de tous ces problèmes-là, il est extrêmement préoccupant pour le pays et compte tenu de la situation économique internationale, que ces questions-là soient, soient traitées et traitées durablement traiter en profondeur pour qu'on puisse au moins offrir à une partie énorme des jeunes de ce pays et surtout de, de la partie travailleuse de ce pays qu'elle puisse trouver les moyens de se réaliser, les moyens de continuer à espérer et à grandir dans ce pays parce que quelque part, il est du rôle et des missions de l'État de faire en sorte que nos enfants puissent trouver sur ce territoire les moyens de se réaliser et les moyens de se satisfaire. Thank you